non non non non eh, Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh bàyyi leen ñu def lu ñu bëgg a def yeah non bàyyi leen yeah Sénégal ah, man la assen Diouf encore xam nga maa ngi dem live direct xam nga waa digg yi ñoo ñëwaat sama kër xam nga nee nañ par force xam nga jox leen ma ko sama wax naa samay avocat wax naa ak ñëpp xam nga nee nañ par force dañuy dajji seen marto la ñu yor nag ak seeni bagage comprendre nga eh ndewali arrièreal fale bu leen bu leen def dara bu leen def dara bàyyi leen leen ñu def lu ñu bëgg a def bàyyi leen leen bàyyi leen leen parce que wax ñi ngi wax ak seen seen commissaire ci boppam bàyyi leen leen bu leen bu leen bu leen nekk di def dara non nañu dajji bunt bi parce que dañ dama am ay droit yee dama am ay droit sooda ba yee yee convocation dañ la koy jox wax la heure nga dem wuy yee xam nga grand demal toogi demal toog yee non non non non non non non non non non non samay avocat waxal léegi non non non non non non dajji leen non non non leen over mi ngi réew jaay doole lañ nekk dañuy jaay doole jaay doole jaay doole la jaay doole askan wi leen a nekkal ah, affaire jaay doole lañuy def mi ngi kër jaamu di dangal fii affaire jaay doole convocation ngay indi loo ko jox borom muy dem après muy wuy ji. defal nii. defal nii jaay doole mu leen wax ba duñ def ñu def bu leen nokk. waaw nañ dem ñu def ñu ñu Canada. ku ci mën nag dama lay aar. waaye du billaay damay wax. damay wax damay def. du mel ne du mel ne. ku ci mën dina ma rey. jëlal jëlal ku ci mën dama rey. ñu ne la bu jëm. parce que pour. bu leen ko bu leen ko fi bu leen ko def dara lu ñaaw nag. non da ngeen sañ a def dara lu ñaaw nag bu leen ko jaajëfale bu leen ko def dara. bu ko laal bu ko laal bu ko laal bu ko laal laa bu ko laal. ay si doon ba pare ay da ngeen koy da ngeen koy def réew jaay doole lañ nekk jaay doole dañuy jaay doole réew jaay doole lañ nekk. ko si yoon. jaay doole bi jaay doole la. jaay doole bi jaay doole la ko si yoon. jaay doole bi jaay doole la. taxawal ko si yoon jaay doole ngeen la ñu. ko gëm dina ma ko yokk. réew jaay doole lañ nekk. réew jaay doole. réew jaay doole lañ nekk. réew jaay doole.